juróomi weer ginnaaw bi ñu dooree lycée Serigne Mouhamadul Moustapha Mbacke bi nga xam ni moom la fondation Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma di liggéey ci Touba Darou Khoudoss fi tóokóor bi nekk liggéey bi di avancé bu baax a baax ci samedi bi dëppoo nag le 21 mai 2022 Serigne Moustapha Mbacke Astouboury mu Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma àndoon nag lenn ci njaboot gi ak waa fondation Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma doon nemmeeku liggéey bi visité mboolem chantier bi. loolee mu ànd kook waa jabaatul muridiya di mbooloo mi nga xam ni sëriñ Muntaxa Mbàkke moom sëriñ Basiiru moo leen jox tur wii ñu dénk leen lépp loo xam ne moo jëm ci saytug liggéeyub lycée bi lee mbooloo mi sax ñoom it lañ dénk li nga xam ne moo jëm ci saytug liggéeyu complexe Cheikh Ahmadul Xadim bi nga xam ne Cheikh Mahamadul Muntaxa Mbàkke moom sëriñ Basiiru moom lay liggéey ci Touba. bi ñu agsee sëriñ maam Cheikh Seye kenn ci jëwrinu jabhatul muridiya leeral na sëriñ Moustapha Mbacke moom sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ak mboolem délégation bi nga xam ne ñoom la àndaloon fi nga xam ne fi la liggéeyub lycée bi toll. ñu bokk ak salle informatique bi ànd ak benn magasin ang bi moo nekk bureau directeur bi bureau secrétariat bi benn salle de réunion après mu am euh, ñaari salle euh, ñaari ñaari bureau yoo xamante ne nii. benn bi dana war a mën a nekk pour l' administration benn bi mën a nekk pour le corps professoral donc léegi fii aussi mën naa jël beneen niveau bu ñu ko soxla donc euh, préparé nañu évolution waaw hmm. ah, bu ñu demee danañ gis ne am nañ préparé nañu aussi si beneen bâtiment bëri incha allah bu ñu ci eggee ko mën a danañ ko mën a wane am naa li si li ñu si mën a tënk mooy euh, vraiment def nañ ay études yu sérieuses cabinet seven structure def ko mu étude structure yi ñu def ay étude aussi sur le technique yi euh, cabinet siram def ko ñoo ngi itam dañu ko def nag def ko addee addee Cheikh Moustapha bu euh, ñu xoolee fondation yi ba profondeur yu si gën a kii 1 mètre 50 la donc bu ñu xoolee itam euh, ñu ko validé étude bi ñu pare dañu ko validé ak prix de contrôle bi muy alpage donc alpage bi ñu ko validé ba pare ñu soog a tàmbali liggéey bi ñoom itam chaque fois bala ñuy avancé fi mu mën di doon alpage day ñëw bureau de contrôle bi vérifié ko <laughs> euh, al al jafatul muridiyya nag nga xamante ne moom la sëñ bi waxoon ñu ànd ak moom liggéey bi ñoom itam da am nañ fi benn technicien boo xam te ne sur place la nekk en permanence muy Moustapha Ndiaye euh, am na itam benn bureau COREX buy liggéey si université bi yor contrôle université bi moom itam duñ ko waxoon mu ñëw jàppale ñu si contrôle bi nga xamante ne talaata ju nekk danañ def réunion de chantier fii tënk ko si benn PV xool fu liggéey bi toll ak lu ñu si war a jubbanti ñoom itam koy def addi Cheikh Moustapha nga xamante ne yàlla dogal côté étude buñ ko xoolee daanaka lépp addi mu Moustapha la bu ñu xoolee entreprise bi itam nag bi ñu koy jël dañoo def kay dossier d' appel d' offre ingénieur Aldiabatul Mouraay def ko bu ñu defee appel d' def une sélection de cinq entreprises bu ñu defee sélection yi ñoom ñëpp ñu joxe kenn ku nekk la nga la nga la nga la nga la nga la nga bëgg a joxe ñu saytu ko def benn PB wane ki ngi jàpp ne moo si gën le ab offre muy Afribat Afribat bu ñu ko tànnee si googu anam lañ soog si signé ma ak moom benn contrat ñu tàmbali liggéey bi yàlla dogal tam bi muy tàmbali bu ñu ko waxee avance de démarrage bi ñu ne ko daal bu fekkente ne mën ngaa liggéey loolu liggéey ñu fay lañ boo ñu am def avance mu nangu loolu nga xamante ne maanaam day def bu liggéeyee ba weer dee ñu xool nu mu toll ñu fay ko ko nga xamante ne fi loolu moom moo ñu jiitu waaye amelu ñu dara euh, boo xoolee itam fi toll nii yëpp ay briques préfabriquées la donc benn usine moo koy defar mu jëlee ko fa andi loolu yëpp pour naa force qualité bi la donc fer bi tam fer importé la def nañ ay ay ba mu wóor ñu ne am nañ résistance bi ñu soxla woon dëgëraay bi ñu soxla woon. muy béton bi muy suuf si muy xeer yëpp saytu nañ ko yóbbu ko si laboratoire bi bañ wóor ñu dëgëraay gi dëppoo woon ak li doon wut. looloo tam du càggante dañ koy def benn rek bàyyi. fu mu toll fu nekk dañuy jël dem seet ko ba mu wóor ñu dëgër na. waaye daal bu ñu tàmbalee léegi daal résultat yi wax dëgg ñu ngi si am yaakaar lool. lépp daal tegagul na si yoon xam naa xëy na nag buñ ne baax na ren na déwéntu ko feeñal yàlla ñaari dimbali feeg fukki at wala feeg ñaar fukki at bañ gisaat liggéey bi bu baax lañ soo ko xam dëgg-dëgg baaxaay bi waaye daal am nañ si yaakaar lool li si des dama wax dëgg sëñ Abdourahmane ak sëñ Moustapha ñoom itam dañoo ne mu gën a baax nañ ko tege noonu ñu ne itam wax dëgg bu desee si ñun la waaye ñoom lañu war a dénk lépp si wàllu saytu matal nañ ko sëkk kon itam ñu seede loolu ne ñoom daal baax gi lañ si bëgg te lépp jaar lépp jaar yoon euh, am yaakaar si ñun ñu ne tam amuñ lu du Cheikh Moustapha amuñ lu du Sëñ Touba bu fekkante ne pas-pas ak xam-xam ak ngëm moo koy def am na yaakaar dañ si am liñ bëgg. na donc bâtiment administration bi buñ paree léegi salle de classe yi moo nekk nii ni ñu ko tëggee woon mooy euh, bii. ñetti salle de classe moo nekk si suuf bi nekk ñetti ñetti salle de classe bu ko defee muy juróom-benn salle de classe bële ñeenti salle de classe nekk fa muy fukk loolu mooy si suuf si kaw aussi dañu ko teg même chose muy ñaar ñaar fukk salle de classe. lu ñu bëggoon mooy bu ñu defee ñaar fukk yi ñu mën koo daloo bu ko defee léegi war nañoo tegaat si kaw deuxième étage muy muy muy muy fukk ñu tegaat beneen deuxième troisième étage muy fukk muy ñeent fukk waaye. loolu ñoo jàppale ne bu ñu ko tàmbalee nii ñaar ñaar fukki bu tàmbalee bañ tàmbali bu école tëjee danañ mën a tegaat benn bu école tëjee ñu tegaat benn ba lépp mat waaw naa ne daal fii ngeen xool itam bu leen ko seetee maanaam ñaar donc bâtiment bi mooy salle de classe benn bi beneen bi salle de classe bi salle de classe yi itam mi ngi koy defar mi ngi koy defar maanaam duñoo xool constitution scolaire si Sénégal ñoom seen liggéey ni ñu koy defee ñu dëppale norme yi fii ak norme yooyu si yaatuwaay beeg tolluwaay bi ndax loolu si jublu mooy ñoo bëgg bu comme école d'excellence lañu bëgg mu nekk ko lycée d'excellence day tax la am fépp daal si lu baax xemmeem nañ ko fii te mébën nañ ko si dem nga xamante ne yaatuwaay salle de classe yi dëppoo na aération bi dëppoo na lépp daal bàyyi nañ si xel sa départ ba bu ko defee nga xamante ne bii mooy bâtiment C bii mooy bâtiment B bële mooy bâtiment D bâtiment D bi lañu woon wax ne duñ ko boole ak ñaari ñaari bureau genn wet gu nekk benn bureau benn bureau nga xamante ne daana def ñeenti bureau si lu njëkk li mu ñu eggale des des ñeneen ñeenti bureau muy juróom-ñetti bureau nga xam ne bu weesoo bureau yi am juróom-ñetti bureau yoo xamante ne xëy na lu mel ne surveillant yi a danañ si mën a nekk si gannaaw nag lañ def barabu suturlu yi toilettes yi nga xamante ne dañoo def benn pour pour jigéen ñi benn pour góor ñi mu nekk lim boo xam ne itam dana doy sëkk ak itam ite yi loolu lépp itam wax dëgg duñoo xalaat ne comme école d'excellence la duñoo bëgg bu ëllëgee ku ñëw xool ne ah kii mën naa nekk référence maanaam bu ëllëgee ku tabaxati si mu murit man ne ah nañ ñëw xool fii ba xam jàng fii li ñu mën a yóbbu waaw ndax dañoo jàpp ne liggéeyam suñu Cheikh xam nañu mën a leen lekk fa muy tàmbalee waaye fa mu ko ndax am nañ yaakaar ne yeneen dana si topp te bu bii mereen nu mu war a mel ñu si topp dana yomb torop ndax li ñu dëkk rek gën fii di yóbbu waaw loolu daal mooy mébét bi di ñaan itam Mbàkke nag ñu mu egg si seen gannaaw te la sëñ Cheikh Mbàkke Gaynde ma di royukaay si wàllu xam-xam di royukaay si wàllu jikko di di royukaay si wàllu yoon wi <coughs> ah, ñun itam si seen gannaaw ñu mën a wéyal wéyal roy googee ak taxawaay boobee ba na Cheikh Moustapha meloon si kër Sëñ Touba ak njabootam si waa Darou Khoudoss mel ni waaw mooy si tënk daal léegi nag xanaa dana seede ne Xaadim Gueye mii ingénieur géotechnicien la maanaam saytu gi ñu doon def yëpp si wàllu xeer yee dëgëraay bi qualité bi moom moo ko jite woon. a euh, Amadou Khayda Diagne mii ingénieur polytechnicien la euh, plan yi ak validation yi ak taxawaay bi moom mi bokk des ñu ko jiite euh, yàlla dogal na juróomi téeméeri classe yooyu ñu xam ne ñu koy jàngee jiite na ko si entreprise yi gën a mag si kër gi. danaa seere ne itam ana Cheikh Mbaye Cheikh Mbaye moom dafa yor benn bureau d'étude à di yëngatu si lépp loo xam étude la moom itam étude moo ko def ab taalibe la daf ko àddee xam naa Alioune Diouf ñëwut moom itam waaye moo def li étude loo technique yi moom itam si googu wàll euh, Moustapha Ndiaye itam moom itam mooy technicien bi nga xamante ne moom itam surtout sëñ euh, sëñ Daaru Assane Ndiaye la moo fi féetee wax dëgg moom itam kenn joxu ko dara day xëy ñëw bis bu set ànd ak yi ba ngoon jot mu bind rapport yónnee ñu def ko mu itam addee xanaa rek mu def ko add waaw sëñ Baye Fallou def euh, xam naa Pape mii nag ñu seede na itam waxoon nañ sànq ne bi ñuy tàmbali laajul avance de démarrage euh, waxtu wu nekk itam ñoo ñoo luñ ko wax ne ko lii baax na dana ci ànd ak ñun loolu tamit dañ ko ko seedeel te fi jamono ñu toll nii lim fi approvisionné bari na lool lim liggéey sa fay guñ ko bari na lool waaye doyloo gi ndax waa Daaru Xudóos la doyloo gi tax na muy am na am na lii moo xam lay liggéeyal tam ñu seedal ko Mbàkke nga ñaanal ko ba këram géetam bokk si kër gi gën a fës si si si si kër liggéeyukaay yi waaw dëgg daal mel na daal euh, ki ñuy liggéeyal dugal feeñ am na lu si feeñal ndax bañ tàmbalee léegi gàllankoor amagut euh, jafe-jafe amagul te lañ mébéti man ne na ñu ngi si yoon woowu kon nag euh, yàlla na suñu borom mottali lépp xam naa li ma mën a seede mooy ba ñuy bëgg a liggéey damaa gënt gis suñu Cheikh Mbacke Gaynde Fatma fii si Daaru Xudoos si këram euh, kër Mor Diosi mu sol lu weex tàll ñu koy siyaare bu mu ñëwee bay siyaare mu mel ne daay wax ne xam liggéey bi yëg naa ko te booba wax dëgg man xam woon liggéey bi dana am ba ma ñu ba ñu agsi si lii nag laa ne ah xëy na lii la suñu bi doon wax loolu dama xam naa ne xëy na ab tegtal la rek ndax booba yaakaaru woon sax na liggéey dana am te lii lii la wax si làmmiñam eh, am am ay am ay ay xéwal yu bari sax ñu si boole waale kon nag Mbàkke ñaanañu loolee lépp ànd si. ginnaaw leeral bi nag Serigne Moustapha Mbacke Assouboury moom Serigne Cheikh Mbacke Gaïndé ma santaat na bu baax a baax waa Jabaatul Mouridiya ci Pastef géeg yitte gi ñuy def saa su ne ak ni nga xam ne noonu la ñuy saytoo liggéey bi bañ liggéey ko ci qualité. waaye soññaat mbooleem taalibe yi nga xam ne ñoo nekk ci fondation Serigne Cheikh Mbacké Gaïndé Fatma ak képp koo xam ne bëgg naa tàbbi ci liggéey bi rawatina chantier bi nga xam ne moom lañ naal. ñu ngi leen di gërëm ci teewaay bi ngërëm li ñu ngi siy jiital maam Cheikh mii ak ñi mu àndal ndax wax na ñi nga xam ne dañ ciy jëf lépp te def ko àddiya waaye ñoom ñoo ci jiitu. liñ ci def lépp coono bu mag a mag lañ ci def nun neguñu lu bañ àggalee ñu ñëw ne ñu lii kat mooy rapport euh, appel d'offre yi ñu jot offre yi jot plutôt euh, nga xam ne nun daanaka signé contrat bi donc lañ ci def waaye lépp ñoom ñoo ko def ñii doon def études yi ñoom ñoo wax ak ñoom ñu def études def ko addiya waaye ñoom liñ def ci seen wàllu bopp moom waxu ko dafa wax rek liñ def waaye ñoom it àddee lañ ko def te ñoo ñoo jiitu moo jiitu loolu lépp kon nag il faut ñu sant leen euh, waxtu neet ñi ngi fii te am na leneen lu ñuy def donc loolu lu métti la xam nañ ko waaye kii tax ñu di ko def euh, yàlla na leen fay waaw gannaaw loolu it euh, tàmbali tuuti ci wax ci fondation bi moo dafay jox basiñaan mu continuer li nga xam ne moom laa waroon a wax Euh, fondation bi sëñ Fata moo ko créé woon 2006 euh, donc 2006 lañ déposé woon dossier yàlla def 2010 la àgg waaye moom diiru li mu fi nekk it jotul ñëw def benn activité bi sëñ Abdourahmane ñëwee relancé activité yi joxe ndigal it ci def lii fii nga xam ne mooy li vraiment li am solo li njëkk a commencé fii la euh, fondation bi li ko tax a jóg mooy. li nga xam ne mooy gisu gis-gisu sëñ Cheikh ñu fexe ba nuñ ko dëgërale lañ ca man xañ na duñ mën a réaliser lépp waaye lu ca bari ñu ñu ñu ñu ñu jëm koo def loolu mooy mooy en li tax fondation bu jóg euh, li nga xam ne mooy euh, biñ koy bi ñu defee fondation bi il faut que fondation am ay membres fondateurs loolu du ñëpp mënuñu ko doon looloo tax famille bu porté ko. donc ci toujours toujours euh, ndigalu sëriñ Abdou Fatah bi donc membre fondateur yi nga mooy ñi nga xam ne bokk nañ ci famille bi yëpp famille biologique sëñ Cheikh ñooy membre fondateur yi waaye fondation bi ubbiku la ndax vision sëñ Cheikh weesu na famille weesu na yoonu murit weesu na jullit yi adduna nit ci boppam moo moo ko taxoon a jóg donc ku ne mën naa bokk ci fondation bi boo dee jullit ma nga cee bokk boo dul jullit mën nga cee bokk boo xamee ne li sëñ Cheikh doon doxal ak li mu bëggoon méngoo na ak yow ni nga gisee àdduna donc fondation bi ubbiku na pour ñëpp euh, li ñu bëggoon nag mooy commencé bañ gis luñ def ñu soog a carte de membre ñu soog ko commencé jaay parce que nit ñi aussi nga wan leen ne def naa lii ba noppi soog leen a woo nag ci la li ak seegul moo gën a yomb waaw loolu moo waral ba léegi euh, bi ñu commencé lii ba léegi waxuñ ci affaire carte de membre waxuñ ci dara waaye loolu ci programme fondation bi la bokk donc dana am ay carte de membre nga xam ne lii ma wax koo xam ne euh, gis-gis sëñ Cheikh méngoon na ak sa gis-gis mën ngaa bokk ci fondation bi jënd carte de membre doon membre ci fondation bi waaw li ci des na bàyyi bas mu mu àggale ko waaw. mbokk yi ñu sof suñuy kàddu rek ci ndigalu sëriñ bi ni mu ko waxee woon. ci li waral jataay bi ak itam barab bi ñu nekk li nu fi def li ko waral ak fin ko tibbe ak liñ ci nisar ci kemtlayal lu nu ci waxtu yu may nga xam le ne sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma mi nga xam ne mooy borom pàkk bii daara ji itam ci ndigalam lañ ko fi defee dafa bokkoon ci nit ñi nga xam ne dañoo jóg ngir xeet li doomu li nit loolu ci doxinam ak i waxinam ak i jëfinam ku ko ci seet danga ko ci gis euh, sëriñ Abdou taa wax na ma ne sëriñ Cheikh li mu amoon ci xarit ci ñu dutu murit wala ñu dut sax ay jullit moo ëpp li mu amoon ay xarit ci murit ma ne ko ah, waa sëñ bi loolu doy na waar mu ne ma loolu yomb expliqué la sëñ Cheikh dafa bëggoon discussion daa bëggoon kuy wax ak moom mu wax dara nga teg ca dara te murid yi duñ def loolu. moo taxoon ñi mu jàpp ne de mën naa sottanteeg ñoom ñooñu la ëppoon lu muy waxal loolu sëñ bi dafa tax moo ma ko wax. loolu kon day firndeel li sëriñ bi wax ne sëñ Cheikh doomu aadama moo ko taxoon a jóg Baye Fallou Niang bi nga xamee ne euh, taxawal nañ wilaya yi ba ñuy njëkk a organiser fi 24 décembre xam nga 24 ni ko gisee woon. mooy loo xam ne ab jullit waru caa def dara waru caa yëngu nu du organiser fii ab ab semaine culturelle ñu bari ci mag ñi gis ne loolu daal nun dañuy de wëlbati xale yi jëmaleen ci ak ak ak leneen yéen jeneen diine ba loolu yóbbu nu bi wax ji àggee ci sëñ Mbàkke gannaaw moo taxoon liggéey bi ñu dem nag di ko di ko leeral maa ngi koy fàttaliku kër Mor Joosi gi lañ ko fekk nii maam Seex wax biñ ñëwee ñu toog wax ko li ñuy def ak liñ ci jublu. mu daal ne fédération bi day bi mu ko sëñ Cheikh sosee am na ay xaritam yoo xam ne ay catholique yi dañoo dañuy ñëw di ci bokk bi leen laajee dañ ne xam nañ ne sëñ Cheikh lu mu sos doomu aadamaa tax mu sos ko. loolu lépp ay firndeel rek ci li sëñ bi wax ci ne sëriñ Cheikh moom doomu aadama nit moo ko ñoroon nit doomu aadama moo ko ñoroon loola nag li ca jiitu mooy fexe ba nit ki dañu réer jàng xam te loolu mooy taxit sax mooy ndax nit ki mënoo waxtu wu ne fu mu ne nga ne ku wax ak moom nga ne ko tontu lii ku ko jox xalaat nga ne ko defeel nii dangay fexe ba teg ko ci yoon woo xam ne dana am xam-xam boo xam ne bu wéeteeg bu wétli ko lu ko mën a wër ak lu mën a doon mu xam la mu war a def xam fa mu war a teg tànkam. looloo taxoon Serigne Cheikh jàppoon ne am njàngale mooy priorité loolu itam dama ciy dolli ne mas nañoo laaj Mouhamed Ali Kane daana ànd ak Serigne Cheikh ñu laaj ko booba dañ koy laaj rek ne ko ni ni nga xam ne kilifa ñu ci bari dañuy am complexe nit. ndax sëñ Cheikh amoon na complexe kenn suñ manee wax loolu mu daal ne waaw amoon na complexe ñaar ñu ne ko kan kan mu ne kiy jàng ak kiy jàngale. dafa mel ni maanaam loolu tuddut complexe waaye ci ci firi wi noonu lañ koy waxee koo xam ne lu mu la wax rek nga nga def ko kon loolu tamit cër la bu sëriñ Cheikh joxoon xam-xam gis nañ ne itam nim daan fekk ñu jàng ñëpp ay doom la leen jàppe woon man maa ngi benn lettre boo xam ne 1971 la ko bindoon bindoon ko Azhar di ca demandé ay bourse bursiyam ca doon demandé lam tàmbalee ca wax ja mooy ñii samay doom lañ moo na doomi sëñ Fallou nga ca sooy bu mu sëñ Fallou ma nga France du doomi sëñ Cheikh waaye sëñ Cheikh li tax mu jàppee ko doomam mooy day jàng kuy jàng ku ne doomam la la jàppe kon loolu lépp day firndeel rek ne moom nit la woon koo xam ne ku ubbiku la woon loolu moo taxoon nag bi mu liggéeyee liggéey bi ba ba ba li ëpp solo mu def ko muy taxawal fondation maanaam fondation maanaam mooy taxawal ay école samp ay daara nit ñu tàmbalee jàng ba nu ak njabootam gi yëpp kenn ku ne mu fës yéene fexe ba nga xam loola nag bi mu fi jógee itam ak njabootam ci loolu rek la ñu wéy ndax sëriñ Mbacke Soxna Lo ko fi njëkk a bi mu ñëwee loolu mu bokk na ci priorité li mu njëkk def ndax 78 la fi nu tati 81 82 la njëkk a taxawal ab lycée fële ci njaareem loolu lépp day yokk xalaatu sëñ Cheikh waaye bi ñu demee ba gis ne ab lycée am na fii tamit te amut bâtiment moo joxe ndigal ne nañu jël bâtiment bi ci tokkar bi di jàngale en attendant na booba Baye Mourtala Diop ak sëñ la ña nga fa moom ak Moussa Diop njëkk moom dañ ko conseil d' administration moo ko demandé ne ko dañoo bëgg ñooñu nga gannaaw Mourtala mi ngi fi woon yow sa nijaaya sëñ Sële mi nga di ko def mu dama mu wax leen ne sant naa leen ngeen dem Touba ngir ngir jàngale ji kii yore lycée bi kii yore primaire bi ñu nommé euh, euh, mussa Diop njekk mi directeur général. loolu lépp ci taxawaay yu am ngir bëgg njàngale mi wéy sëñ bi wax na ko léegi ci euh, bi mu fi jógee itam sëriñ Abdoul Fattah xalaat yooyu rek la am. ba gis ne Serigne Cheikh kat warees na koo taxawal loo xam ne fondation boo xam ne maanaam ñi bokk ci moom di njabootam ay taalubeem yoonu murit julit ñi wala képp koo xam ne bëgg nga lu baax nga mën a am foo sotti ci yéene ji nga am ci moom ndax jëflante gi mu doon dañ jëflante. loola nag bi Serigne Abdourahmane ñëwee loolu la firndeel ni ko Serigne bi waxee ba fondation bi taxaw bi mu taxawee itam moom fondation bi li mu njëkk a gis rek mooy. lii ñu wax ne Serigne Cheikh njàng ak jàngale moo ko gënoon a ñor te bàyyi na fi ay école bàyyi na fi ay daara kon nag loolu war nañ koo puus ndax daa am fu jamono toll ñu dajale li nga xam ne lépp jàpp nañ ne war naa tabax lycée excellence lycée bu baax lu toll ci quatre cent et yoo xam ne war naa mën a defarub lycée waaye fii ci yoonu it mënoo def dara te du da ngaa am ndigal ndax ci ci kilifteef rek la ñuy dox. xalif général de moom Cheikh Mamadou Mountakha mi nga xam ne moo fi nekkal Serigne Touba yàlla na ko fi suñu borom yàggal lool te wéral ko gën ko fee yàggal te gën ko wéral moom itam ab xalaatam daa wuute wuute xalaatu Serigne seex ndax moom itam fekk na mu xalaat ne dëkk bi àgg na ci am université ba mu taxawal ko ba tàmbali ko kilifa yi nag bu ñu demee di ko ko yëgal fekk jël nañ seen matuwaay yëpp sëriñ bi ak xiram ak xam gum xam ne li luy dox ci yoonu mu moo ko war a doxal la wax ne dëgg la sax waaye nag man mënu ma cee ñàgg dugal sama loxo loolu moo taxoon sëriñ bi itam jàppe ci noo xam ne euh, joxe ci cent millions yoo xam ne dafa wax ne lii nañ ko ci dugalee ndax noo ko waroon a def te loolu it mooy dëgg. loolu te njaboot gi nangu ko waaye fekk na ñoom ñu waajal ci fondation bi ak ci mbokki taalibe yi nga xam ne ñoo nekk ci kër gi ak ci mu yoon wi ba jàpp ne liggéey bi war naa mën a sotti kon loolu itam liggéey la boo xam ne jullit yëpp yëpp yëpp lañ ci séentu ndax def lu baax rek la ndax euh, tabax fu ñuy jànge yow mi nga xam ne dox nga def nga ca benn dërëm donte nekkatoo fi ku fa jànge ku nekk ak foo mën a nekk boo nekk ci biir bàmmeel it yoolu kafay fay jànge ak lu mu def ci lu baax dana la fekk fa nga ne kon loolu sadaqa jaariya la te loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa dénkaane woon ne ni ngeen di fexe ba jëf-jëf yoo xam ne dafay sax du dootu fi jóg nga xam ne nit ki su demee ba ndax nit kenn ko ne daa am fooy tàmbali ak foo yem waaye nag Euh, lo fa ngay tàmbalee ak fa nga yem firiwut ne fa la say tiyaaba war a tàmbalee wala fa fa la say tiyaaba war a yem loolu moo waral ñu xalaat ne jullit bon bu nekk war na cee mën a dugal loxoom ngir sëriñ Cheikh itam noonu la gisee woon maanaam gisutoon loo xam ne daa jàpp ne moom rek moo war a def lépp ndax bari na lu mu mënoon waaye bu daan def da ko daan santaane ngir bëgg kenn ku ne def ci loxoom ndax kenn ku nekk am ci yiw ni mu ko ci amee. kon loolu ab tënk la rek ci euh, li nga xam ne mooy euh, doxinu école bi li njàng mi nag niñ ko waxee duñ ci wut sax Moustapha Diop njëkk ak ak ak ak ak ak ak ak ñi ko yor wante ay ay nit fi ne yoo xam ne ñenn ñi fii la ñu tàmbalee jàng ba am seeni lijaasa jàpp ne xam ne it na nañoo am feneen fu ñu jàngalee jee foo xam ne lañ leen fay fay ak conditions yañ fay ne mooy gën fuuf conditions yi ñu nekk fii waaye ñoom ñu gis ne sëñ Cheikh defal na leen loo xam ne. lu ñu mën a am feneen suñ ko doon xaaj fukk yoon tañ du ko am fii moo leen koy gënal ñu sacrifier seen bopp. sacrifier seen bopp ngir bëgg ñoom itam barkeelu ci liggéey bi ci li nga xam ne nii delloo njukkal seen Cheikh loolu bu ma doon lim ñu fi nekk ci jataay bi ci ñoo xam ne ñooñu lañ du du jeex kon loolu itam. Euh, sëriñ bi gis ne ko xam na taxawaay yi ngeen taxaw ndax difficulté yu bare bare bare bare bëri lañ fi jànkonteel waaye amu ci kenn koo xam ne da nga wonk wala nga wala nga découragé ndax da ngaa ne sax euh, na sëñ Cheikh jàppe woon nu nu kenn ku ne noonu la jàppee moo di làmp jóobum Cheikh sëñ Cheikh Fatako nee na damaa ñëw ci sëñ Cheikh fekk boobu ñetti junni ak ñe juróomi téeméer lañ may fay ca ñaaxeen fay gi tuuti ma ñëw ci sëñ Cheikh bi ma ñëwee sax dara yëkkati woon na ma waaye bi ma nee lu loolu taxoon na jóg dama ne ko dara waaw dama ne ko dara nee na Euh, euh, euh, bi ma laajaatee nag ba ma wax ko maanaam li ñuy fay ak ak li ñu ci war nee na sëñ Cheikh ne ma da ngaa ñàkk jom waaye danga ngaa waroon a jàngale ba noppi fay da ngaa waroon a jàngale ba noppi di fay kon ñi nekk fii itam di jàngale noonu la ñu gisee dañoo gis ne dañoo waroon a jàngale ba noppi di fay kon nag lu leen ci fekk lu nekk dañu jàpp ne lu ca topp la waaye ñoom seen tuwuñ ci dara loolu itam sëriñ bi gis na ko kon mi ngi ñaan suñu borom subhaanahu wa taala li ñu tàmbali te tàmbalee ko ñu ko tàmbali te bi ñu ñëwee liggéey bi ak techniciens yi muy maam Cheikh ak ñi mu àndal ak euh, euh, ñi nga xam ne ñooy yore liggéey bi mooy Fafal ñoom ñëpp nun bi ñu ñëwee xool rek directeur général li mu waxoon Fafal mooy man daal bi ma fi door ñëw ñuy teg numtati bi damaa gëlëmoon waaye fi ne mën ngeen maa bàyyi maa gale waaw mën naa ko àggale léegi loolu la wax loolu mooy ngir mi leer na ci sa bopp liggéey bi itam ku ko gis ku nekk dangay xam ne liggéey bu sell la ndax du duñ xam sax la ca biir ak lu lu ne lam laaj duñ technicien yooyu waaye lu nekk nag boo gisee karkaas gi rek danga xam ba xam lii nuru na maanaam xeeñ na euh, lu neex wala xeeñu dul neex kon liggéey bi ni ñu ko gisee wax dëgg yàlla ak bi mu tàmbalee léegi am na ci kilifa yoo xam ne dañoo jàppoon ne bañ tegal xeer ba léegi dara euh, defaatuñ fi dara loolu lañ jàppoon kon bu ñëwee gis lii loolu surprise la waaw surprise la kon nag euh, loolu mooy kàddu yi noo ngi jéglu bu baax di leen sant di ñaan sunu borom subhanahu wa taala ni ñu ko tàmbalee Euh, ci ah, bali ci des lépp nu àggalee ko noonu lépp sotti fi sunu ci sunu kanam ci kanam kilifa yi ñu nekk seen gannaaw euh, te lépp itam dëppoo ak ni nga xam ne noonu la noonu la ko sëriñ bëgg. alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sëriñ bi maa ngi jégalu ci ñaan gi ma ñaan kàddu waaye dafa mënta ñàkk dara waralu ko yi lu seere nag ak cant cant gi maa ngi koy def ci turu mboolem ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci saytu école bi. di saytu gone yi moo xam ay jàngalekat lañ moo xam ay directeur lañ ndax may seen jëwriñ kon ci seen tur laa lay seer na sëñ bi ñi ngi sant bu baax a baax a baax a baax seen xool sedd na seen xel dal na seen xool sedd na seen xel dal na fos na yéen itam incha allah luñ doon def lu ne danañ ko yokk incha allah kaddu seere itam ndax liggéey bi bi ñu koy liggéey am na ci lool fekke naa ko ci réunion yi nga xam ne bi ñuy def contrôle yi defe naa defe na fi ñett réunion yoo xam ne lu ci waaye nag dama laa bëgg seeral ne li nga xam sax mu euh, nga xam ko ba noppi waaye ginnaaw yàlla dogal na ñi nga xam ne ñoo seqoon liggéey moom seq na ma ñoom ay liggéey maa ngi seen seenuk sérieux lool ci yëf yi maanaam wóor na ma ne boo doon teewee réunion bi ak boo doon teewee liggéey bi ak nga ak nga ñàkk ko teewee ñooyam même bu fekkoon ne nag ko doon teewee nañ ko doon liggéey noonu rek rek lañ ko doon liggéey kon am na ci ixlaas am na ci sellal am na ci wax dëgg yàlla ak taalib ak pastéef bu wër a wër a wër loolu gën a fekkoon nag faaw ma seere ko loolu doo ngay kàddu yi waaye yéen ñi yor liggéey bi itam ma seereel leen ne leen cant yii leen sant bi sant day àgg na ci sëñ Muntaxa seenu cant taxawaay bii ngeen taxaw rafet gi mu rafet sëñ bi àggal na ko sëñ Muntaxa maa ànd ak moom maa ngi ci di ko gaaral liggéey bi ba ko si taxawaay yéen waa jëppa bi ak ñu yor liggéey bi yëpp mu sant ca lool wax ci yéen itam lool maanaam wax dëgg yàlla ñeena leen ca lool yàlla leen suñu borom euh, dëgëral ca loolee waaye loole sëñ bi seere ci ñoom dugal ko ci nopp sëñ bi yàlla na ko yàlla dolli te ngeen taas te taas du ci barke boobee barke bi sëñ Tuubaa loolu rek laa ne woon naa ko ci yokk di ñaan suñu borom bi yokk xewal yi yàggale ko jam jàmm ci barke bi waxee sëñ Tuubaa ñu waxoon rabis tajib waltu kammil maa nawaytu la daa tuuba allati bika tubnaa fiika bunyaana salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ci fàttali lycée Serigne Mouhamadul Moustapha Mbacké bi ñu door ko ci weeru décembre atum 2021 fondation Serigne Cheikh Mbacké Gaïndé Fatma ñoom ñoo ko financé waaye di liggéey boo xam ne dañ ko yaatal ci mbooleem taalibe yi ak képp koo xam ne bëgg naa ñëw tàbbal ci ñaxam ànd ak ñoom liggéey bu ni mel ndax jëf ci liggéey bi sax kenn jiitu ci Serigne Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou xalif général des Mourides nga xam ne biñ ko ko yëgalee rek ci la joxe téeméeri million def ko ci liggéey bi.